imposer la cohabitation euh, ci profil yi nga gis nii pour yow am nañu chance lii ñu mbébét wax ko au soir du 17 ñu am gain de cause. gaw ma ko je ne le ah. pense pas sincèrement. Ah. je ne pense pas pour la toute bonne et simple raison que c'est une association de frustrés en fait que je vois c'est des frustrés en matière politique. c'est des gens qui n'ont pas commis de grands résultats et surtout qui n'ont pas conscience que seen poids électoral dafa wàcc ci lu bari. wala sax bu ñu ci amee confiance dañu espérer ne bu ñu unir seen force war nañu mën a jàkkaarloo ak euh, benn leader politique qui s'appelle Ousmane Sonko. en vrai ñoom ils se combattent eux-mêmes ndax comprendre nga li ma bëgg a wax. <laughs> cest à maanaam li nuy def ni mënuñu ci am ndam xam nga lu tax. Hmm. voilà des personnes yoo xam ne ce des gens ki se sont ñoom ci seen biir bëri ay discorde ci wàllum politique c'est-à-dire que man xam nga lu ma mënut a concevoir hmm. dans la politique sénégalaise mooy ne bu intérêt taxawee hmm. dañuy fàtte lépp luy conviction ak crédibilité boo xamante ne ñoom jotoon nañu ko sax soit soi-disant soit soi-disant on voit sur une même photo en Barthélémy Diaz ak Bougane Gueye Dany. waay c'est pas choquant ça. Mm-hmm. lu tax mu war la choquer pour ay nit non pour ay nit ñoo xamante ne jote nañu lu ne ba tiiran ba génnante ay armes. bu dee ni juboo nañ nag ci diggante bi. moom laa la wax question d'intérêt. <laughs> ah. moo tax waaye bu ñu ne dans leur discours nañ ci génnee askan wi parce que seen problème crypto personnel réglé gul ba ñuy war a mën a régler seen problème politique. voilà un Bougane parce que ñàkk courage moo tere coowam lu bari lii yépp moom il n'a pas pris la responsabilité du faire comme Ousmane Sonko comme moom day Sonko Sonko lu mooy mu demal élection boppam te bañ a langaamu ci kenn. mais may bu ngaan yoo xam ne sekkoon nañ ko à part ça dañoo amoon beneen problème boo xam ne war na mën a tax bu ñu du ñu mën a forme former. ndagam mairie leen mën a jotale maasam ak assemblée nationale nañ waxante dëgg. kuy koy balakee da ngay bale sa buntu kër ba mu set ba pare door a dem feneen ndagam ñoom Mermoz bi du bokk moo leen mën a créer problème waxuma la ak assemblée nationale wala assemblée dafa taxaw siège taxaw rek juboo am. élection yee bokkut. enjeu yi nag moo gën a soxal askan wi xam nga lu tax. on parle na pouvoir qui a été élu à 54 pour cent et d'un président bu jëlaat lépp delloo ko delloo leen nga yëpp askan bi ne leen a ma faloon comme da ngeen bëgg ma liggéeyal leen jox leen ma majorité assemblée nationale tu penses que ce sont des gens yu dem présidentielle am fa ay résultats yoo xam ne ñoom ci seen bopp ils doivent être surpris de leurs résultats mhm. maanaam ñoom am nañu résultat yoo xam ne bett na leen ñoom ndax yaakaaruñu woon ne ci wàllum politique sax mhm. ñàkkee nu noonu bayre te ñoom ñëpp taxaw nag ci photo bi ñoom ñëpp dañu am histoire liée ak un personne muy Ousmane Sonko donc qu'est-ce qu'ils décident comme ils sont faibles seuls il décide que ñoom dañuy booloo pour mën a am kàttan pour daaneel Ousmane Sonko. waaw ci la ñu gën a néewee doole. parce que Mouhamed li ma la wax du daj. ci la gën a néewee doole. waxaguma ci politique luy teggeeku fu mu nekk nii. xam nga problème bi lan la ñoom lu ñu comprendre mooy en réalité seen problème du Ousmane Sonko de xam nga seen problème lan la. lan seen problème mooy électorat bi ñuy wuti ci mooy askanu Sénégal. perception bi ñu am ci homme politique yi. am na ñu ànd ak ñoom de. tu sais ko que Ousmane Sonko a réussi dans ce pays ma wax la ko. Hmm. Hmm. du aaru def politique de li mu réussir c'est conscientiser un peuple. mooy ne ubbi leen seeni gët ci façon gu politique bi ñu doon def boobu ba léegi ñëw indi leen leneen lu bees lu sénégalais yi xamul woon tu crois que kooku leen ubbil seen bët nag ñooñu ndagam aujourd'hui i son réveillés et bien éveillés avoir les biens les yeux bien ouverts ñu tànn bu baax timing bi nga xam ne fa la bi commencé tàmbali liggéeyam défilé dem beeg dikk bi tàmbali ñu ne leen ba léegi ubbi leen seen i gët de ci lu ma leen waxoon ci ay kàddu yéen a ngi koy commencé gis ndànk-ndànk aujourd'hui on voit des alliances yoo xamante ne nii saa waay moo woon xalaat ci sa àdduna ne politique dina dox ba ñuy bon àndandoo booloo dem je pense que nii dinañu réussir seen pari bi le problème mooy électorat ba ñu jëm électorat bu ci bëri ñoo leen gëmatul. ndax xam lu tax wor. intérêt personnel calcul politique manipulation mhm. ak incohérence ñoom juróom yi yëpp dañ koo boole su doon loolu la dinañ woote woo sàmm sa kàddu ak soo yëroo ñoom dañoo bëgg sàmm seen kàddu bopp ñoom te seen kam sàmm sa kàddu bi sa gëmuñu ko ba koy gëmloo nit ñi mm. waaw sa kàddu boo ko gëmee du soxla nga koy sàmm en réalité mhm. sa kàddu la yaa ko moom yow koy doxee ko jëfee ko rek bu dee askan wi itam ngay dem pour ñu fal la askan wi ñoo la koy sàmm donc ñoom sàmm sa kàddu bi gëmuñu ko ndax ku ko gëm doo boolee Barthélémy Dias ak Bougane Gueye Dany du am benn plus-value ñi nga gis nii nga dem àll l'Assemblée nationale ci ngoon nga gis leen un Bougane un Thierno Bocoum un Pape Djibril Fall bon gisoon nañ ko c'est vrai ah Déthié Fall ñu war a jàkkaarloog un premier ministre war a def déclaration de politique générale li doon càkkuteef nit ñi mais au moins niveau bi yegg ci niveau. enjeu yi mais kaay ma wax la bëgg a dégg dëgg. ci mun ko challenger moom le premier ministre <laughs> man dama gëm ne assemblée nationale ñoom mën nañ fa nekk war nañ fa mën a place xam nga lan laa gëmul. Hmm. procédure bi ñu bëgg a pour yegg assemblée nationale loolu laa gëmatul en lëkkaloo lëkkaloo gi ci lëkkaloo goo xamante ne à la man je je ne vois le sens en vrai c'est-à-dire li ma bëgg nga comprendre ko mooy ñoom xam nañ ne à eux tout ku ci dem yow kese doo am dara. comme yeneen coalition yi waaw mais yeneen coalition yi ñooñu c'est des c'est des partis de l'opposition yoo xamante ne bi ñu wàccee ci pouvoir mm. yàggul mm. ça veut dire que ba léegi même bu fekkee on tente d'ouvrir les yeux des Sénégalais am nañu ay militants yu nekk ci ñoom ba tey yow xanaa xamoo APR sax man laa gëm ne ñooy ëpp doole ñooy ëpp sax ay voix ñi maa la wax loolu parce que dafa am ñoo xamante ne dans l'ADN politique du Sénégalais Sénégalais bul fàtte ne le sentiment dafa nekk ci ñoom ba tey bul mm-hmm. fàtte loolu mm-hmm. bul fàtte ne tu as un xamante ne sentiment lay doxee mooy ne am na ñoo xam ne loo mënti wax fii ba suba Macky la nu bëgg donc lu Macky joxoñ baaraam dañ cay dem c'est comme des waddisti quelles que soient les années lu ñu mënti am sentiment mm-hmm. boobu du dañ ci ñoom c'est une réalité politique sénégalaise a prendre en compte oui mais Pastef après ñu jotee ci nguur ci la demal boppam ñii amuñu booloo benn Pape Djibril Fall lépp lu moo jotoon liggéey ci les serviteurs <coughs> serviratu ko dara moom ah oui parce que à l'Assemblée nationale dafa lajj ci mission sénégalais doyatuñu benn député boo xamante ne li ngay ñëw di assisté bëriwul boo ñëwee nit ñi di xaar nga féete ak askan wi nga dem farax nguur gi donc moo weddi lu boppam xalifa Ababacar Sall Barthélémy Dias dans le même sac parce que ñoom ba ñu nekk biir Yewwi compagnonnage xarito bu sincère bañ doon wooteeg Ousmane Sonko te Ousmane moo yore bës bi mooy ne sénégalais bugguñu kenn toppuñu kenn Sonko la ñuy topp est leer na ci bopp nit ñi. bopp ñan Sénégal neexul waxee dëgg toppuñu kenn. ku yaakaar ne yow la ñuy topp yaa ngi nax sa bopp Sonko la ñuy topp léegi yow nga gëmloo nii ne yow xaritoo la fraternité la relation fraternelle boo xamante ne daray sincérité amu ci waa ji xeexal na la waaye ba nga ko waree xeexal da ngaa waaf ñëw indi animosité ci diggante bi tas wi askan wi nga dem élection sénégalais wan la sa bopp nga ne da ngay dellu si waat législative ah. mais wooluwoo sa bopp pour yow kese tu vas aller chercher une Anta Babacar Ngom n'a pas fait de résultat également dans les présidentielles et qui a un énorme potentiel. Thierno Bocoum même chose. Oui, c'est pas mal, mais je veux dire